train express régional di wëy di dox ngir gën a yombalal dem ngeeg dikk gi ak bus rapide transit bi nga xam ne nii liggéeyam door na. mu bëre lool ay nit yi nga xam ne ni ñoom ñoo ñëwoon ngir jël bi moyen de transport bi nga xam ne nii daa a jóge géejawaay dem bés bu ne Petersen jaaree ko ñaar fukki station ak ñett te juróom benn simili bu ne dana am benn bus bu jaar. loole doon mbégte bu rëy ca ña nga xam ne ni ñoo ko war a jëfandikoo. yàgg nañ ko xaar euh, waxtu bi yàlla def na ñëw na donc dañ koy rafetlu rek dañ koy rafetlu. boo daan jógee waaye di ñëw di nga def ay deux heures de temps de plus ou plus ci yoon bi mais avec BRT bi j'ai vu que ne même pas quarante minutes egsi nañu. bu ñu sukkandikoo ci ñoom bi lépp BRT doon na lu mucc ayib te kaaraange ci soxla yëpp mu ngi ci biir. c'est confortable. et puis euh, am na sécurité. BRD moom neex na moom neex na trop. waaye ñenn si ñoom jàpp ni njëg yi nga xam ne nii juróom-ñett fukk la tàmbalee jàpp téeméer dafa cher. ndax euh, dama jàpp ne ki jóge gàddaay di dem euh, Dakar warul yem ak ki jóge croisement 22 paas. ñeneen jàpp it ni waroon nañoo jagleel paa yi seen i place bopp ci biir BRT googu. mais s'il y avait un endroit réservé au troisième âge dina gën a neex. xam nga am na jeunes yoo xam ne bu ñu gisee ñun mag duñu xool sax moo tax fa laay waxee pour ñu ne réservé ñu place. gannaaw bi nga xam ne ni BRT bi tàmbale na di eb ay nit fukki gaar ak ñeent ñoo pare ci ñaar fukk ak ñett ya nga xam ne ni fa la bus yi war a jaar. gaar yi jot a pare nekk ci ay points stratégiques yu ci mel ni Petersen place de la nation grande Dakar Sacré-Cœur Liberté 6 ak yeneen ya nga xam ne ni day tax ba jóge Dakar dem ca banlieue ba gën a yomb ci askan.